dafa am lu ma bëgg a jëkk a leeral muy le groupe Wallu le groupe Wallu euh, déposé wul demande de mettre sur pied une commission d'enquête pour mettre pour euh, euh, conflit yi nga xamante ni nit ñi dañ ko yaakaar si pouvoir yi nga xam ni moo am au niveau di Sénégal li groupe Wallu def man dama jàpp ni républicain yépp dañ ko war a saluer parce que li tax ñu def ko mooy c'est pour défendre la République et c'est normal dans toutes les démocraties du monde qu'un groupe parlementaire indi benn demande pour ñu taxawal commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale yàlla dafa dogal nag bi ko groupe wàllu indee pour défendre la République mu dajee ak ay parlement yu bari d'accord ci ay parlementaires yu bari d'accord ci kon nag li am tey dama dégg ci mbedd mi ñu naan une nouvelle alliance entre Wallu ak APR wala une nouvelle alliance entre kii ak keneen déedéet bu leen jaxase xelu askan yi bu leen jaxase Wallu ak askan wi Wallu dafa def normal gis loo xam ne nii c'est un danger pour la République mu ñëw pour défendre loolu et défendre la République demander une commission d'enquête pour ñu leeral ay situation yoo xam ne nii am na ci invalidation wu candidature de Karim Meïssa Wade loolu bëggoon nañ mu leer ci boppu askan wi te li andi loolu mooy laat la le conseil constitutionnel ci lu toll ci fukki fan diggante fukki fan conseil constitutionnel génn na ñaari décision décision le 12 boo xam ne dafa indi 21 candidats ñëwaat le 20 génnewaat Karim Meïssa Wade ci situation yoo xam ne nii situation yu douteuse la yoo xam ne nii leerul ci bopp askan wi ndax nag fi mu toll nii tembe coow li moo bari rek mais Sénégal gépp am nañ lu leen desee leer ci naka la ñu génnee Karim Meïssa Wade parce que bu fekkente nii conseil bi dafa indi décision le 12 ñëwaat indi décision le 20 soo xoolee même le conseil constitutionnel en tant que tel da ngay gis ci biir ni moom contradiction yi nga xam ni am na ci décision yi dafa mel ni sax moom dafa violé la loi organique bi nga xam ne ni moom moo organiser le conseil constitutionnel ndax bi ñu ñëwaatee le 20 dañu wax dañu déposer une réclamation mais réclamation kon nag aajowul ñuy examiner le fond du dossier sinon ça devient un recours pour violer même la constitution à son article 92 kon le conseil constitutionnel mun nañu wax nii dafa même violer la loi organique bi nga xam ne moo organise seen fonctionnement en article 14 parce que ils ont instauré une procédure contradictoire au moment où déposé nañu ba pare joxe nañ li ñuy joxe kon dama jàpp ni tey fii réew mi toll conseil constitutionnel moo indi jafe-jafe yi nga xam ne fi la réew mi toll loolu nag képp kuy patriote wala képp kuy république ki nga xam ne moo porté woon réclamation bi daf ni daf doon défendre la république et des valeur de la république moo waroon a jëkk a jóg taxaw tey pour voter la mise sur pied de cette commission d'enquête parlementaire pour défendre la république mais pour leeral li nga xamante nii ñi ngi leen koy jiiñ ndax climat bii nga xam ne nii ci la ñu nekk est-ce que mën nañ ci dem élection yoo xam ne nii waa conseil constitutionnel bii ñoom ñoo koy arbitré man yaakaaruma ko te sénégalais yu bari loolu lañ yaakaar donc problème bi dépassé na largement la personnalité de Karim Meïssa Wade mais c'est la république en jeu et ma et je pense que bu melee noonu l'institution parlementaire devoir am mooy moom mu jóg taxaw défendre cette république loolu moo tax le groupe Wallu déposer la création de cette commission war koo voter di ñaan collègue yi nga xam ni ñëpp ñoo nekk ci hémicycle bi ñu euh, ñu voté ko parce que bu ñuy ñëw tey di wax ci nationalité Karim Wade mais ñëpp xam nañ ko ñëpp wax nañ ko parce que loi bi dafa wax ni moment bi ñuy délibéré bi ngay kañ la nit ki di nekk candidat le 20 moment boobu noonu Karim Wade moom moom rek moo nekk ci 21 yi ni sénégalais la bu wóor kon li jaaxal nit ñi mooy le conseil constitutionnel contradiction yi am ci décision yi nga xam ni xajul ci antenne bi nga ah, prise de parole bi ak yi ci am yëpp yu luus yooyu noonu moo jaaxal groupe wàllu ak sénégalais yi ba ñu demander une commission d'enquête parlementaire léegi nag li muy aboutir loolu moo ñuy yóbbu ëllëg fi nga xam ne nii fi lañ jëm en tout cas ñun li ñu jàpp en tant que groupe wàllu mooy élection yi moment bii ñu nekk nii ak conditions yi ñu nekk ak l'actuel conseil constitutionnel mënuñu ko tëral ci tëral boo xam ne nii ñoom ñoo ko war a àtte parce que li ñu jàpp mooy faillir nañ à mission ndax nag boo nekkee juge ñu lay wooyee sage am na yoo xam ne nii décision yoo xam ne nii waroo ko jël am na leneen loo war a interpréter lu dul nga xam ne nii moom la ñu interpréter kon ñi ngi woo ñëpp ñu voté cette commission